ñu yuuxu ko saaga ko xas ko ma ma taxaw engagé ña ko saaga ak ña ko xas te pour pourtant kii day ki ngeen koy ki tax ngeen koy wax lii day mhm. moo ko jur maa ndam coon Gàmbi bi ko ñëpp bàyyee ma rafetal lépp nag yi ko mi san sàmbay sama maam démb doon borom jaam xaw ma lu ñaaw mhm. te duma wax lu ñaaw mhm. fekk yonent yàlla Muhammad li ma fekk bari na. sallallahu li ma xam bari na. Ahmed. Euh, li ma li ma gis bari na. Ahmed ci déclaration bii nga bëgg a def nii. mais ni ñu la déggee ngay wax nii dafa mel ni xool bu tooy ngay waxee fa nga toog gisuñu la waaye xam nañu ni sa sa ay rongoñ. ma ngay ma ngay génn li tax tey maa ngi nii di dem Suisse. di ànd ak waa kër président Macky Sall yi. Mhm. Ablaye Ndiaye Ngaldu. Mhm. moom moo foofu. ma pare ba ma sa président bi moom lay dem di defi. amoon na lu ma waroon a def waaye mënu maa jàkkaarloog Sénégalais yi man di wax li mu bëgg a wax. danga nga bëggoon def da nga bëggoon def conférence de presse. waaye dama ko mujj bàyyi ndax xool naa ba xool xam ne mënu ma jàkkaarloog Sénégalais yi di wax lii ma bëgg a wax. d'accord lan nga ma ma sàkkaloo ko ci téléphone. d' accord léegi léegi lan nga bëgg a wax loo xamante ni mënoo jàkkaarloog sénégalais yi ba tax tey nga yëkkat sa. téléphone fa laa jëm nii. Mhm. da nga maa bëgg a dagg rek waaye fa laa jëm. bisimilah. dafa doon nag loo xam ne. Euh, dama ci wax ak ay nit yu bari ñu ñaan ko bëgg mu ko bëgg ma wax ko ma bëgg lépp rafet fii Sénégal la bis ni ki tey. dama xool xalaat seet bu baax xam ne arrêté suma liggéey ci biir Ramadan day doon lu gën ci man gën ca ka ne di ko jiite. Mmh. gën ci ñenn ñi nga xam ne xëy na comprendre nu may gërëm bu baax waa Ramadan nag musiciens yi. Ahmed da nga bëgg a wax ni dakkal nga sa liggéey bi nga xamante ni Thione Seck moom moo la ko dénkoon ci biir Ramadan nga nekkoon ca ba tey jii Faramaren. may gërëm bu baax nag waaw dakkal naa loolu may gërëm bu baax waa Ramadan ndax samay nawle la te dama ànd ak ñoom ci ngor ak dignité ak sincérité ba ma déggee dinañ xam ni nit ku dëggu nit ku leen gëm nit ku bëgg Ramadan mooy wax. ndax dafa am benn wax bu ma wax rek coow li jub te man am naa droit wax lu ma neex ci jëmm jooju ma waxal waaye dama ko rafetal ba mu rafet ne kontaanuma rek fa laa yem comme que Sénégal nag léegi dëkk bi dafa naqaree wax xale yu ci bari xamuñu wax te dañuy tontu wax te àdduna du loolu ndax foo def ñaar fukki at. Mm-hmm. boo fa waxee war nañ laa mën a déglu xam ni am na loo fa xam lu bari. Euh, suma yaay laa ci waxtaanal. Mm-hmm. dafa am nag li gën a yokk sax ma ma wax. Mm-hmm. mooy bisu Kër Massar bay passé. sama yaay foofu lay yeewoo suma baay foofu lay yeewoo ñu ngi ak sumay jarbaat ak sumay mag mu am lu rëy lu fa am. yaakaar naa ne ñun ay géwël lañ boo ne dama ne rek xam nañ li nga bëgg a wax Cheikh Ibra Fall dañ di géwëlam di taalibe Seexul Xadim ñun yàlla rek lañ gëm yàlla lañ wóolu gëm yàlla tax ci sama aar moom ma bañ cee def dara lu neexul sama yaay wala neexul sama papa loolu rek sama ñaq Padros mhm. man duma ma triandé du ma sàcc du ma fen du jël lu ma ci aar ba ci yonent yàlla Muhammad dama cay doyloo ci aar waaye bu ma demee ba bërëb ba ma def ñaar fukki at nangam di liggéey liggéey faat nit ba kooku woon ma ginnaaw doomam osé taxaw publiquement fu sama yaay dëkk di ko déglu sama yaay moo ma ko wax ci gémmiñam doomi Thione Seck ji de war naa taxaw fii ak li nga defal baayam yëpp li nga daj ci moom muy wax dina la gaaral ma ne ko déet yaay du man rafetal ko waxut waxut ak man man ay géwal maa la jur yow gërëm naa la te rafet rek nga séq ak baayam bu ma demee nag ba dégg loolu mu metti meer bi xaw na maa metti tuuti nag waaye nag loolu amul solo mënoon na fee sax ñëw ma ne ko déet yaay jarul ñëw jarul sax muy ñëw ndax Thione Seck lu ma mës a xewle teg na fa tànkam am naa ñaari jabar sama ñaari jabar yëpp coon coon dafa teew am naa ñeenti doom sama ñeenti doom yëpp Thione Seck ngénte la da cee teew moom musuma xewle ci na mu teg fa tànkam sama ñaari mag gaañu naan musuma musuma xewle mu teg fa tànkam kon moom bu ñëwul ci yow wala mu wax lii bu bu la betti da di xale rek ma gërëm nag sénégalais yëpp nag pour parce que damay waaj dem léegi aéroport gërëm sénégalais yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di sargal ñëpp di gërëm képp kuy jiwal di sant sama nawlu yëpp ci aar bi ndax ci aar laa ne fexe naa ba teral ci suma ndey ak suma baay ak sumay mag d' accord mais Ahmed li ma bëgg a laaj. fexe naa ba jeexal ko ma ñëw fexe naa ba ci sama liggéey bi ma ne. Mhm. fexe naa ba am ci ay numéro deux ñu naan Ahmed Thiou numéro deux Ahmed Thiou numéro trois. Mhm. aar nag moom fekk nag day am retraite. Mhm. ba ma xamee loolu laa tàmbal depuis dix ans ci ginnaaw. laay def samay album. di dem tëgg samay soirée bopp biir Europe. sama plan de carrière nag dama koy topp. da ngay continuer sa plan de carrière waaye da nga arrêté sa liggéey ak Faramaren arrêté nga sa biir Ramdan dama arrêté suma liggéey biir Ramdan. d' accord mais teewul sa digganteeg waa ratax na yéen a ngi seq jàmm. Euh, ku coon sekk jur. Mhm. li sekk. Mhm. bàyyi Ramdan tu tax ma bàyyi moomi bàyyi Ramdan taxul ma bàyyi Bintu. bàyyi daan taxul ma bàyyi Alioune Seck bàyyi daan taxul ma bàyyi Mouhamed Seck bàyyi daan taxul ma bàyyi Babacar Seck ak ay Aïcha ndax ñooñu su may rakk lan ñoo bokk bàyyi ka tëdd ca Yoof daf ma leen a dénk kon ñooñu mënu leen bàyyi waaye dafa am lu baari lu ma dund ci Ramadaan met ñu def ma ko mu metti ma lool nag mu mun ko ay ati at barke yonent yàlla Muhammad ku dee sa bàmmeel billaahi wallaahi taalaahi ku dee sa bàmmeel mu dund ci ay ati at ñu def ma ko te ki ma ko def mi ngi fi mu xam ma xam ñu bari xam su ma mënee baal lépp bàyyi lépp dinaa ko baal Ramdaan nekk Sénégal nag di liggéey ndax doomi géwël laa te doomi garmi laa te xaw ma lu ñaaw waaye moom day bu dee man def naa ko dara ci aar yàlla naa ko gis. d'accord waaye lépp lu mu ma def ci aar day def ma ko ci biir groupe bi ba jusqu'à présent ba fi ba toll nii barke yonent yàlla Muhammad damay xaar ba nu yegg. te yàlla nañu yàlla guddal suñu fan nag ba bis penc man la yokk moom ndax loolu mënu ma ko baal. d'accord waaye nag bàyyi naa Ramadaan bàyyiwuma doomi coon sekk yi muy ñi mën a limal. ñi nga ma limal waaye moom la moo tax li ngay lim tuddoo ci turu Wally. waaye moom moom. Mm-hmm. Serigne tubaa mooy sama Serigne moom laa gëm yàlla bu ma Serigne Touba ram yu ma xiyaam moom li ma def ci ci raam daan lépp mu mun ko bay si ma fii dajale naa lépp tegaat ko ci loxo suñu borom bàyyi ko yàlla atte ma ak moom ci barke Seydina Mohamed maa ngi gërëm senegal gépp nag. ndax damay dem pour bëgg lii sénégalais yi nekk bitim réew te damay ñëwaat ci réew mi pour continuer sama carrière continuer sama liggéey non non ma kenn nag Padros. ma waxaat ko tey. jërëjëf képp ku ci wax rek. Mm-hmm. maa ngi lay baal àq. ku ci wax te xamoo ci rek maa ngi lay baal àq. jërëjëf te barke